wax nga ko parce que man loolu moom gën a intéressé si bi est-ce que wax nga ko. parce que xam nga possibilité bi est-ce que est-ce que wax nga ko non man je dama ne. man je l'ai écrit. ok man avant muy. bi non avant muy am. avant muy report bi avant report bi. j'ai cherché plusieurs fois à le voir. on fermé toutes les portes. ah kan moo la fermé toutes les pour gis ko j'ai pas je n'ai le ko. je normal le samedi matin le samedi matin j'ai j'ai pas fermé l'œil le samedi du repos. le samedi du repos j'ai pas fermé le vendredi toute la nuit ku ma xam ku dul jinne seeti naa la ba samay ku nekk woo naa la pour pour pour que yàlla yàlla de génne président Macky Sall ci xelam parce que je savais parce que man mois alerte boo xoolee sama page Facebook y' a y' maa ngi alerte parce que je savais tout ce qui tramait que man yàlla def na du ma nelaw guddi. Hmm. lu bëri xam naa ko parce que ñoom temps bu ñu ut di ut xaalis. di ut leneen man maa ngi ut xam-xam maa ngi ut relation maa ngi ut connexion di nekk ci lu ma nekk. mais mais Arsène Avy lan moo lan moo. léegi beneen bi j'ai écrit le président lorsque je l'ai écrit dans la lettre ce qui est marquant je l'ai dit monsieur le président je l'ai écrit le samedi matin nelawuma je l'ai écrit rappelez-vous de votre parole où vous dites que le Sénégal est au-dessus de votre personne allons en allons aux élections et vous en sortirez grand et 2029 vous pouvez revenir. parce que vous aurez fait dans ce pays ce qu'un un président pourra en moins de de douze ans li loolu laa ko mujjee et même dernier ça je suis allé plus loin j'ai écrit à Yoro Dia Yoro Dia Yoro Dia ma ne ja Dia je parle Yoro xam na il a vu mon message je lui ai dit Yoro peut-être tu auras la chance d'être la la dernière personne à voir le président parce que bu communication bu may def yenn kii hmm. boo amee euh, waxal ma li président Macky Sall mais lan nga jàpp ne moo war a report bi complètement est ce que lu par exemple exemple question bu. xam nga président xam nga état gars yi dañuy xëy rek dañuy créer cinq cinq personnes ñoo song la fii song la fii song la fii song la fii teg candidats pollués lañu njëkk teg y aussi la argent de Qatar ñu fi nekk parce que tey am na ñoo xamante ne dañoo am na lu ñu jot. c'est vrai parce que tey boo gisee suñu biir nit ñi gars yi tey am na ñoo xam ne dañoo changé oto. am na ñoo xam ngi ci beneen level en fait ils sont dans autre chose. <laughs> président nekk <laughs> ah, non non non ñu ngi ci système bi ñu ngi. Ah, chaque jour ñu ngi wër plateau ak télé di wax ay oto yu bees tàkk la ñu yor ay lu nekk. te jëlewuñ ko président joxuleen ko jëlewuñ ko ci est-ce que tu comprends un peu. Mm-hmm.